salaamaaleykum mbokk yéen ñi safoo seetaan Click Dakar 221 yaakaar naa toujours ñu andi leen mbégte am mbégte ci yéen bu baax a baax yéen euh, mbokk énergie ji te di wax ngeen abonné ci Click Dakar 221 lépp loo xam ne réer leen ci réew mi rek incha allah wër leen ko ci Click Dakar 221 point com waaye tey nag yaakaar naa dañu teg ak benn daan boo xam ne réew mi xam nañ ko àdduna xam nañ ko muy Yandé kodu seen nekk fii ci parcelle nekk koo xam ne nag ah li muy def muy seet muy li muy def muy ay ñaan da ko doon ci ah ay maamam waaye nag jigéen la macha allah dallu nekk fii ci parcelle kon dañ koy bàyyi mu nuyoo rek euh, ak mbokk internet yi après ñu xuus ci waxtaan wi yàlla kon du ñu ngi delloo ñu ngi leen di nuyu Dakar Cri ah, di leen ziar di nuyu àdduna bi yëpp ah di nuyu Sénégal bi ñëpp. Ah, di ñaanal Sénégal yàlla na am jàmm tamit ndax jàmm si la lépp xaj lu dul jàmm jàmm ko gën. Mm-hmm. Ah, di ñaanal euh, sunu xalifa sëñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wër di mm-hmm. ñaanal bépp kilifa diine mm-hmm. yàlla nañ fi yàgg te wër macha allah. Mm-hmm. macha allah yaa ko du wax ci rafet na nuyoo bi macha allah am na solo. ka ko ka nga mm-hmm. rek macha allah muy suñu xalifa muy suñu lépp tey. Mm-hmm. tey yaa ko du ñu gis ko macha seet. macha allah lu mu seetul baaxul. yaakaar na àdduna xam nañ ko root nañ Europe xam nañ kan mooy yaa ko du ci seet macha allah. tey yaa ko du wax yaa ko du mooy kii wala kan mais yaa ko du lan moo ko dugal ci seet sa da ko donn wala lu mu jàng la wala lan la. seet lu ma doon la doonul lu ma jàng li ma doon si samay maam nee nañ loo doon mu daal dëgër mm-hmm. man li may def dama ko doon samay maam mm-hmm. jëliwuma sama petaaw ñëw ko rek di teg mm-hmm. waaw di teg di kii dama ko doonu daal waaw danga ko doon daal boo ngeen wax kan mooy sa maam kan ngay wax réew mi kan mooy sa maam man sama maam mooy Malick Jama loolu nga wax de man maay jeune lu ma seetul baaxul loolu réew yëpp xam nañ ko jeune défaillante yow la man la Yandé maa Yandé Codou Sène tur bi na ko wax de Yandé Codou <laughs> ku xamoon seet wala ñaan. ah lépp sa xel day dem ci ah làkkat muy séréer. man nee naa la su ma seetee damaa war a seet. Mhm. Euh, su ma seetul damaa war a seet nee naa la man su ma yëkkatee sax suuf jox la. Mhm. demal te xam ne léppay sotti. Mhm. macha allah lépp sa maam daal. waaw lépp sama maam da nee la sa maam sët moo koy doon. la sa maam sët moo koy doon la sa maam a koy doon. xam nga di nga ko doon ba pare dem di ko jàngiwaat man damaa doon ba pare dem di ko jàngiwaat. di jàngiwaat encore macha allah day gën a fort. tey ñu gis réew mi yëngu na. tey foofu la ñu di mbokk yi di wax Euh, képp koo xam ne soxla nga ki nga xam ne mooy Yandé Codou Sène nekk fii ci parcelle mhm. ah, am na numéro bi daw ci barre bi saa su ne soo ko wooyee di nga ko jot appel normal bu dee yaa ngi ci Sénégal mhm. boo nekkee bitim réew itam ah euh, numéro bi am li nga xam mooy WhatsApp boo nekkee jafe-jafe rek incha allah mhm. boo ko baax a baax parce li ñu yooyoo mooy seet dëgg la teye nit li fi maam yi bàyyi woon ba tey mi ngi fi boo boo demee fa ndox daan taa boo demee ba tey fekk fay teppi teppi du fa jóg lii mooy suñu raadu te lii lañ am di seetlu di génnee ay ñaan tey sang suñu yaram loolu dong la moo fi am. Mhm. Mhm. Mhm. waa man loolu gisoon naa ko bu amutoon ma rus mais xooluma woon ndax si yaa awa ndax affaire yi dafa xaw a moon ci man. waaye gisoon naa ni daal dina am si jaxateur yi. dina gisoon naa fi benn instant bu war a am mais xaw ma ni woon ci moom la maanaam joxu la yaa awa. joxu ma gisoon naa ni accident dina am. waaw ku nekk si milieu mhm. gisoon naa ko si. ah fu may gisee ah, man damay jàkkaarloog nit nit sax di gis. damay mën naa bañ a laal dara jàkkaarloog nit nii di xam li nekk si yow. gisoon naa ko mais dama wóorutoon yaa awa la. Mhm. waaw xamoon naa ni trop tard accident bu metti dina am coow dina am. non du question loolu man lii li ma gis lii li ma gisoon la man réew mi yëpp xam nañ ni lu ma xoolul baaxul de. laay laax ila laax da ngay da leen di laaj. laaj leen <laughs> waaw lii laa gisoon lool laa gisoon bu amutoon ma rus far mu am. Mhm, macha allah. ñu waaw mataa Matar suba teel moom loolu moom coow loolu gisoon naa ko. loolu gisoon naa ko coow moomu lépp. <laughs> mais lépp laa gis coow loolu gisoon naa ko di nee naa la coow loolu bu amutoon ma rus macha allah mais Matar Diop Subatel moom million bii mu nekk moom kenn du ko si ëpp wërsëg ta si kaw rek la jam mm-hmm. waaw. ci kaw la jëm nee naa la non yàlla xam na ni xaw ma ko sax man xaw ma ko sax xaw ma ko sax xaw ko sax mais damay gis ay mbiram rek waa damay gis ay mbiram ay bidéw non bidéwam moom si kaw rek la jëm si kaw rek nee naa la barigo si mbattal la buux mu dem buuxul mu dem non pourtant sax gisuma ko de moom teg ñoom sax seen sarax sax lu tuuti la musuma leen génnee sarax <laughs> seen sarax lu ndaw la rek sarax li 12000 francs doo nga koy génnee a ah, bu ñu bu ñu seen affaire lu mu rëy rëy rëy rëy passé wu 12000 francs déggoo ma la wax ma ne leen seen sarax lu mu ndaw ndaw ndaw 12000 francs doo nga koy génne waaw Mataa Diop seen sarax nee naa ko 12000 francs lu ndaw dong la te moom bi déewam dafa fedd de ci kawrek rek la jëm coow li bari na waaye coow lu koy fay lu ndaw dong la hmm. coow li dama koo gisoon mais lu koy fay waa amaro moom ak coow li amaro moom ah, coow li ah, du ko da koy wàññi mee du ko yokk comprendre nga waaw coow li da koy wàññi mais du ko yokk wàññeeku amaro moom temps yi moom dafa wàññeeku moom eh, yow war ngaa gis loolu sax <laughs> non man maa gis coow moom ay laafam moom da see xaw a wàññeeku waaw mais Matar Diop suba teel moom saraxam moom 12000 francs dong la waaw mais mun musuma leen gis musuma leen ñaanal tamit Mhm. ah mosuñu maa woo téléphone. waaw suba tel musique. mu ngi noonu soxna Koddu Sène. la grande voyante mu ngi noonu macha allah. Mhm. tey mu wax yaakaar naa dégg ngeen numéro baa noonu dafa d'écran bi. dëgg la ngeen woo ko parce que àdduna yaakaar naa. Mhm. lépp rek yaakaar naa kenn ku ne rek ak sa xam-xam. dëgg la ngeen jàppanteeg moom mu ngi noonu. saa su ne. Euh, kon tey gis nañ euh, bi yi nii. dëgg la ci élection yi. Mhm. tey élection yi boo ñu doon ak lan nga moom lu ma si gis euh, président Macky Sall ak Sonko moom. Mhm. man gëm naa ni moom Sonko rek. Mhm. mën naa jër réew mi. waa gëm naa loolu. mën naa jël réew te coow bi muy coow nii. du ko delloo ginnaaw kanam rek la koy delloo. macha allah moom Sonko. kon dama ne coow lii may gis du ko delloo ginnaaw kanam rek la koy delloo waaw mhm. kanam rek macha allah. Mhm. Mhm. kanam rek macha nga xam ne mooy euh, président gis ne tey euh, troisième mandat du am. non pra troisième am waaw troisième moom gisuma am waaw. dëgg euh, gis ne Sonko. Ousmane Sonko tojal na ko keroog ba mu nee nañ jël kubéeru euh, cundi di di tëgg. waaw ah, boobu la tojal kilifa yu bëri. ba de Ousmane tojal na ko ñoom si ñoom xam nga ñoom si kilifa yi ñoom seen ah, biir ñoom ñoo tojalante seen biir mais waxuma yeneen kilifa yi ñoom si seen biir nga xam ne ñooy xëccoo nguur gi waa loolu moom day toj foo deggee moom ñuy toj kubéeru cun mhm. ah, day woo ay ginne mhm. day day day tojalaate mhm. mais waxuma moom kilifa yi kilifa yi dara mënu leen fi tojal moom waaw ñoom si seen biir gis nañ ne réew mi bëri xam ce que xam nga xam sarax bu ndaw te doo ko def moom mooy loolu maanaam galaas yi rek ñuy seen buñ ko jëlee def ko si tali bi rek galaas yi buñ ko jëloon Euh, glace dafay dafay dafay seddal lépp xam nga accident yu am dañoo tàng yaa ngi dégg accident yi fël nit mu dee rey nit ñu ni mais tali yi defoon glace macha allah jàmm rek ay am dafa yomb mais dañ ko sàggane président Macky Sall da ko sàggane da ko sàggane trop mhm. kon tey gis euh, mhm. dañ ko sax coow sax da koy fay macha allah day seddal lépp waaw. tey boo ñu tam ci li nga xam ne mooy showbiz mhm. gis nañu Wally Ballago Seck. Mhm. la Youssou man li ma si ma man lu ma si mën a ah, euh, wax. non man du ma far man faruma de man dama ne la xam nga Wally Seck gis nga borom xol bu rafet ak ku ndayam ngërëm yéen a ko jaam ah, ku ndayam gërëm ay mbokkam gërëm ko muy dimbali nit ñi. may Mariasine Maysa Biége jàmm rek si moom ah, macha allah ah, mun nañ ko xeex mun nañ ko xeex mais xeex bi du yegg fenn gis naa nag ñu di ko xeex nag di ko xeex buñ sañoon nag mu daanu mais mënaluñ ko dara waxuma nag pour far nag mais kanam rek la jam macha allah man li ma gis rek laa xam laa wax lu ma gis rek laa wax. non man li ma non lu muy def moo tax fii ku fi def lu baax ñu waxal la ko nag man dafa def lu baax moo tax ñu waxal ko ko nag macha allah jàmm si moom rek. ñu ngi koy concurrencé ak Sidi Diop ñu ngi koy concurrencé ak euh, euh, nu mu tudd euh, Youssou Ndour Youssou papaam la dëgg la waaye tamit nag Waly moom li mu fiy def kenn defagu ko fi macha allah man li ma gis laay wax déggoo li ma la wax la déggoo ma ne la déggoo fii ku fi bëgg lu baax doo ko bëgg ku bëgg bon nag doo ko fi roy loolu dong la Waly ku bon rek a koy bañ mais ku baax ku ne mhm. comme moom da koy bëgg man li ma gis laa wax waaw. macha allah loolu laa gis daal. loolu nga gis da daa gis. waaw dëgg du neex tamit. macha allah tey. Mhm. Euh, yaakaar naa ci la ñu mhm. li nga xam ne mooy wàllu liggéeyam. dëgg la en tant que koddu. yaa ne mhm. koddu seen. dëgg la ci seet nekk fii la nit nga xam ne tey nekk na Europe am jafe-jafe liggéey di wër Europe wala am jafe-jafe këyit tey ce que bu na ma woo ma seetal ko macha allah na ma woo ma seetal ko génne ko ay saraxam nit yàgg naa am jafe-jafe Europe mu woo ma ñu ngi may dégg ñu woo ma ma seetal ko génnee ko ay génneel ko ay sarax mm-hmm. waaw. macha allah déggoo de mm-hmm. macha allah mm-hmm. waaw. Euh, euh, war ci moom di ko def. lu war ci moom di ko def loolu maa gaaw. Hmm? Euh, juboole ay nit loolu maa gaaw. macha allah loolu maa si gaaw macha allah. Hmm? loolu la suñu borom bi dog ak mbiru suñu borom xam nga yàlla mooy seet lu ko neef mu def si jaamam maa ngi nii xale bu ndaw laa bu ko yàlla neexoon def ma leneen mais daf maa def ma doon kat macha allah waaw di si dimbali nag doomu aadama yi ku ñëw ma seetal la wax la say sarax nga daal di dem macha allah. Mhm. waaw ma wax ko ay saraxam mu génnee ko ko. waa rab ak jinne lan mooy rab ak jinne. waaw rab macha allah danoo rab day da lay yàkkal rab day tëj sa buntu wërsëg rab dina la téye nga bañ a am jëkkër rab dina dina la téye say nit ku baax ku ñëw daal di dem macha allah rab noonu lay yàqalee doomu aadama toog sa xol di tàng kenn du la def dara wala nga toog di énervé wu du beru yow kase rab noonu lay def si doomu aadama. tey waa rab dina la te am jabar rab dina la te am jëkkër wala rab sax dana sëy ak yow te yow doo si xam dara fekk na rab la wala rab tee laa am jëkkër tamit loolu yëpp moo tax nee naa leen ñuy dem di faju ji daal ñuy dem ci faju ji waaw mhm. di faju ji bu baax a baax macha allah tey euh, mhm. mhm. la mën naa si dara kay man lu ma mënul dama naan ma ko man lu ma mën dama la naan mën naa ko boo toogee ma di la seetal gisuma la dama lay delloo sa xaay na la demal gisuma la. Mhm. Ah, euh, ñu nekk ñu nekk ñu nekk ñu nekk réew dañ may woo téléphone ma seetal leen. am na ñoo xamante ne dañ may woo wala am na ñoo xam ne dañuy jógee ba bitim réew. ñëw sama kër ma leen seetal seetaan. am na ñoo xamante ne dañuy ñëw am na ñoo xamante ne dañuy nekk en distance ma di leen seetal. Mhm. dañuy wax par téléphone bi ma laaj ko turam ak ay atam. ma wax ko lu leer naññ mun naa ko sax bañ laaj tur yaayam ma wax ko lu leer naññ. atam ak ay ak turam ma wax ko si lu leer naññ te lu ma ko wax du dañ ah, musuma seetal nit mu ne ma gisoo ma. macha allah sunu borom bi dogal na nit day nekk fu sori woo ma ma seetal ko te li ma ko wax daf ma naan gis naa la nit mënu ma musuma koo seetal mu de découragé mm-hmm. waaw nee naa la man jëli jiwuma samay petaaw ñëw teg ko fii lii affaire doon na la mm-hmm. dama ko doonu de mbir mi du ay foo du ay caaxaan du ay naxe mbaay li may def dama koo mën su ma ko mënutoon dem naa jaay géej déggoo ma de ak lii eh, ah, waaw lii moom day day lii moom ay bagage yu baax la maanaam xam nga nit kuy seet war ngaa am bala ngaa aar nit ki aaral sa bopp aar sa yaram waaw moo lay aar ah, parce que booy seet façon bu nekkay ñëw si yow ku nekkay ñëw si yow kon yow mën nga war nga mën a aar sa bopp ba pare doog a aar nit ñi kon Ah, sol naa si lu bari macha ah. allah sol naa si lu bari aar sa bopp bala ngaa aar keneen. Mhm. <laughs> yow mi seet aaral sa bopp musluwaay sa bopp doog a aar keneen. nu mhm. mbir mi noonu la dëggam déet. mooy yoon dëgg la. bi daal lu ma si gis du yàgg dara mu tas. nabu daas mënut a yàgg ak jëkkër. <laughs> déggoo li ma say bi nee naa <laughs> du yàgg dara mu tas sëyu nabu daas nabu daas ay ay riiram rek ko ëpp doole de maa ngi koy dégg mu naan mi ngi sëy bu sëy fu dara nekkul léegi moo fi nekkal jigéen ñi bakkan lay laaj <laughs> nabu daas millions yi bëri na macha allah million yi bëri na macha allah mais sëy bala nga koo def jóg si nga def ay ñaan saraxe jigéen no mais moom sëyam du yàgg nañ ko teg vaar bi ñu xool ba xam. Ah, ah, <laughs> nan. déggoo munu leen wax dara daal mais sëy bi daal du yàgg. nañ toog xaar. Hmm. vaar baa ngi fi nañ toog xaar man soxna Yande Codou seen seen caali maa ko wax. Hmm. dagg du neex. Hmm. soxna Codou ak sëñ Baara laaj nga lu am solo. macha allah man sëñ Fallou dama ko bëgg <laughs> sëñ Fallou Mbacke ku waaye ak moom doo tiit doo ragal man moo tax man tiitu ma ragalu ma dafa doon sama waay macha allah sëñ Touba tamit doon sama waay macha allah sëriñ Mame Baye Niass ñëw tamit mu doon sama waay waaye kenn du sëñ Baara ndax ba ma affaire yi bëgg a dugg macha allah ma feebar feebar bu metti macha allah mbake Mbacke ay sa sëñ Baara moo ma feeñu. waaw ah, na ma soxna si yaa ngi feebar ma ne ko Mbàkke Balla Aysa damaa feebar de mu ma waaye mi ngi toog si piliyaanam ma sukk si suuf mu ne ma dangay ngay wër barki yonent bi moo tax ma bëgg ñii ak sëñ Baara gis nga sëñ Baara maa ngi wër fotoom gis nga ku ma indi ba ma ne ko indil ma sa foto sëñ Baara boobu ba léegi laa ko gëj a gis foto bi daf maa jafe mënu maa fexe ba am ko boo ma laajee si loolu sama yaram day daw barki alxuraanu karim billaay waaw ñi may remercier moom bëri na maa ngi remercier sama yaay macha allah sama yaay yàlla na suuf oyof si kawam sëy na bu ñëng mi nga xam ne lii moo ko doon def ba yàlla dogal tey mu génn àdduna ma di ko def di gërëm tamit sam papa kenn du moom tamit waaye papa bi nag maa ngi koy gërëm mais dafa jaloux maa moom ñoo nekkoon si kër gi muy def ñaan may def ñaan mujj gi mu gis ay clientam di ñëw si man mu jaloux si loolu ne ma wuutal foo nekk <laughs> ma ne ko père yaa ngi jaloux mais dara dinaa wut ma nekk maa ngi koy gërëm moom it di ko sant loolu daf may yokku jom maanaam nga nekk sa kër di ñaan ba sa papa la demal nga wut foo nekk loolu da lay yokk jom macha allah di gërëm samay mbokk yëpp macha allah kenn du ñoom ci man ñu bëgg ma tamit macha allah di ma jàppale di ma xelal tamit macha allah. samay client tamit maa ngi leen di gërëm di leen sant tamit ndax kenn du ñoom si man daal kenn du ñoom si man. macha allah ñu ngi may nemmeeku di ma woo def man ni seen bopp daal xeebuñu ma benn yoon macha allah bu ñu amee dara lu leen naqari wala dara man la ñuy woo. barki yonent bi bilaay macha allah jërë ngeen jëf bokk mhm. internet yéen safoo seetaan ci Dakar 221 tey nag waxtaan bi mhm. amaloon tey ak soxna Kodou Yandé koddu Sène dëgg la koo xam ne macha allah seetkat la ah mais xale la mhm. ndaw la mais li mu def ko donn ci ki xam ne mooy ay maamam tey macha allah mais numéro téléphone am saa su ne moo nekk ci barre d'écran bi. dëgg la di défilé. saa ne mhm. koo soxla rek koo nekk bitim réew Sénégal. Mhm. mën nga woote ci numéro bi rek barre d'écran bi mooy numéro soxna la seetal la gënal sa sarax. Mhm. kon mbokk yi fi la ñuy yem ak na leen nag ah ci réew mi la dëkk te ah nañ ko jàppale. moo nekk ci moom macha allah la yàlla may na ko ci ah ci ak ci yàlla bi jox jaamu yàlla yi. dëgg la kon fi la ñuy yem rek ba beneen yoon incha allah jërë ngeen